loolu ak ñu génnee ma kër gi ci anam googu ak sama bakkan rot laa yemale woon képp ma bi ma leen bàyyee noonu ak sama bopp ci la kenn ci ñoom ñaar ñi téye sama loxo di manote kenn ci ñoom moo ma doxe ginnaaw fi fii dugal loxoom nii la ma xoje ci sama ginnaaw la nekk nii la ma xoje ki taxawoon ci sama buntum néeg te sol njam put bu bi ak caaye ji moo taxaw ci sama kanam kooku kooku kooku rek laa ñu ñëw fekk nañ ma nekk seen i kanam waaye kenn kooku taxawoon ci sama buntum néeg moom bu taxawoon fii ma ne kii la moom rek laa ci xàmmee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 ndax nee na mi ngi ñëw loolu commissaire Sarr boobu ak ségu nga xam ne toogaat nañ fa cinq minutes yoo xam ne waxuñu di xaar commissaire Sarr man ak sëñ Cheikh Abdou Latif ak commissaire fay ak ñeenti élément yi rek ñoo nekk ci biiroom lu mat cinq minutes commissaire Sarr doog a agsi commissaire Sarr it bi mu agsee commissaire Faye moo ko wax li mu waxoon damaa jaawale ba mu ko wax itam ma waxaat commissaire fay commissaire Sarr ak commissaire Faye leen li man maay dem naan da ngeen maa jaawale yéen ay dem wax ko samay kilifa foofu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 ni ma am nattu nag su ku suñu borom bëgg dimbale bëgg laa yéegi foo xam ne say jëf yóbbuwu la la koy teg ni ma kon yow yaa ci war a sant yàlla bi mu daaneelee moom foofu la daaneele ma ñaan ko ni ko damaa bëgg a yëkkati kàddu daal di yëkkati kàddu leeral ko li fee yi ñu ma def ci kër gi ni ma ko waxoon ci kanamu sëñ sax ba fee jeex ma ne ko nag sëñ bi lenn rek laay sàmm sama der ñii dañ ko taqal mettital sama yaram mettitu yaram bi moom diisut ci man